Senelec dafa nekk ci tànk yoo xam ne chaque fois dañuy jéem a xool li ñuy defal client bi nan lañ ko gën a mun a améliorer loolu moo tax bu ñu jógee si compteur classique yi Senelec ñëwoon si compteur woyofal léegi ñu jógee si compteur woyofal ñu ne dañuy ñëw si li ñuy wax compteur intelligent compteur intelligent nag boo ko déggee mooy lu compteur yooyu yëpp doon def moom mun na ko def waaye léegi nag day permettre client bi dootul soxla ñëw ba si compteur bi pour xam lu mu war a def dina permettre client bi dootul jël clavier am pour xam lu mu war a def mais client bi si téléphone portablem am walla ci ordinateur am lay toog xam information yu mu soxla woon yëpp ci bu njëkk ba ci client bi donc loolu dina nekk amélioration boo xam ne dina ko dimbale aussi si téléphone portable am walla ci ordinateur am dina toog mun a jënd crédit mun a charger compte compteur et surtout aussi si ordinateur am wala si téléphone am xool consommation am nan la demee xool consommation am lan moo koy lan moo koy gàllankoor lan moo koy yokk lan moo ko war a wàññi donc loolu yëpp mu nekk ay facilité yoo xam ne si côté client bi la léegi si côté Senelec tamit ñun dinañu dimbale ba nga xam ne comme ni ko client bi di defee dootuñ soxla déplacé wu si central système bu ñu toog au niveau de Senelec opérateur bi dina mun a xam ne compteur bii kat am na problème kat soxla na type dépannage yi am na dépannage yoo xam ne nii sax foofu noonu mu toog mun na ko fa def donc muy njëriñ boo xam ne dina tax ba qualité de service bu ñu doon jox client bi dinañ ko gën a améliorer beneen amélioration bi tamit ci côté senelek mooy lu ñuy wax perte non technique yi nga xam ne ay fraude ak yooyu noonu yëpp dina ko améliorer ndaxte léegi compteurs yi am nañ xel ba ba nga xam ne lu si nit bëgg a def loo xam ne bokk si dina ko mun a signaler Senelec innovation boo xamante ne nii tey client bi dina si gagné Senelec dina si gañe loolu moo tax tey jii nii ñu ñëw fii nii si gore ak le maire bi nga xam ne lépp lu ñu mos a taxaw jàppale nañu si ñu ne nañ fexe kat ñu jéemal a fii projet bi nga xam ne projet la boo xam ne nag pour Sénégal yëpp lañ ko jëlee mais ku ñëw gore tey pour mun a jox lumière Sénégal yëpp loolu day nekk loo xam ne lu symbolique la ak lu am importance la. ndaxte compteur bi. du échanger lu information yo xam ne dafa lié ci consommation électricité soxlawul yeneen données client bi soxlawul leneen et que aussi comme nuñ ko defee ci yeneen compteurs yi opérateur bi nekk foofu du accéder ci leneen lu dul ci information compteur bi donc loolu dañuy bëgg a rassurer suñu clients yi rek information yu concerne consommation électricité bi compteur bi du ko la gore mom dinañ fi def euh, ñeenti téeméeri compteur muy 400 compteurs yo xamantene ni damay fateli rek ne comme numa ko waxe amone na fi deja juromi client Senelec yo xamne amone nagn compteur yi deja mais ñoñu ci petit ci professionnel yi lañ bokkon legui nak nag nañ ko yok ba nga xamne dina nek ñenti téeméeri client yu ñuy yok mais ñoñu nak moy client domestique yi nga xamne ñom ñoom ñoo nekk si kër gi et donc lolu buñ ci paré ñu def test bobu nak ba paré après léegi dinañ jël affaire bi ñu yóbbu ko nag tas ko ci Sénégal yëpp tas ko ci suñu client yëpp. te gore ak Senelec dañu yàgg jëflante jëflante boo xam ne toujours ndam rek lañ si am bu ngeen xoolee gore dafa nekk population boo xam ne neex na maîtriser ndaxte il la Gorée it aussi client yu fi nekk ci lu ñu gis yenn difficulté yu ñu am ci yeneen zone yëpp amuñu ko. te wax deug yalla autorités yi aussi nek nañ dans des dispositions yo xamné chaque fois que Senelec sollicité len dinañ taxaw nu ñu wara taxawé taxawee te def na fi aussi ay investissement yo xamné on a des installations aux normes manam lu waral ñu tànn goré dal dafa né conditions yu ñuy set pour wara démarrer projet yu mel nii yëpp fekk nañ ko fi goré en même temps bu ñu amee engagement autorité municipale si Bob bi nga xam monsieur le maire mu ngi nii Augustin Augustin Senghor jàppale ñu ñu bu baax loolu day Nek, Benen atu boo xamante ne lépp pour tey jii nii ñu ñëw projet bi pour tas ko Sénégal. C'est du Rafetlo aussi démarche Sénélec ci li nga xam ne lancement euh, compteur intelligent yi mu namma defal fépp si Sénégal ci gorani goxaan yi ak ci kër yëpp ñu ko comme commune pilote pour lancer euh, li nga xam innovation la ci rewmi parce que Sénélec ak limuy def ak euh, état du Sénégal li ñuy def day permettre euh, Sénégal dugg ci deuk yi nga xamné tay ñu am système bu jëm ci walu euh, électricité bu moderne bu innovant bo xamné day yomba ci askan bi ñom ñu mun ko toppatoo mun ko dund mais yomba aussi pour Sénélec mu mun liggéey Gorée nak buñ ko tanné duguleet parce que biñuy def compteur Woyofel itam fi lañ ko lancé won yalla may ñu mu nekkoon euh, donc euh, euh, lancement bu am euh léegi ñu ñaar tanat ñun dañ koy rafetlu nanguko ko ak si projet bi di ñaan mu nek réussite pour que ñeneen muñ ci roy yeneen localité xam ne Senelec li muy indi goré fi ak li mu bëgg indi ci yeneen gox goxaan ni ngeenel lay doon si gestion problématique électricité muy lan ñun ñëpp ay borom kër lañu li ñu intéressé moy période bu gëna a woyof aussi consommation électricité bu gëna baax te donc compteurs yi loolu la ñuy may mais li gën euh, neex ci loolu mooy même ak woyofal bi gisoon nañu am yenn jafe-jafe yi léeg-léeg bu sa compteur bi ñu la jox arrêté fekk ce courant jeex mais léegi nee nañ ñu di nga mën ci sa téléphone am donné yëpp ba mun tontu yow sa bop compteur intelligent bobu ba saafara sa problème wala jokkonte ak Senelec pour mun régler sa problème.